عليك صلاة الله ثم السلام فبرهام جد عاشق فيك واميق kon nag dañuy jox Cheikh Baye ibnu Cheikh Mouhamadou Aqib bu mu tëj jotaay bi di ko jox kàddu yi incha allah sëriñ bi sunu ko lëreeg yow ñu ngi koy féetali di la wax ne fii sa njabootu way jur bi rek ñoo fi ne wallahi ñu ko sopp ñu ko bëgg nga may leen jàmm lool bëgguñu yow it taxawuñu wax dëgg yàlla saa su nekk rek ñu ngi lay wax ne taalibe yëpp ñu ngi kontaan ci yow di faslante ak yow kóllëre incha allah ñu ngi jox Cheikh Baye mu tëj jotaay bi incha allah jërë ngeen jëf alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin ibnu abdillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla di ndokkeel suñ bopp waaye di ndokkeel cheikh Mouhamed Sakhir Kabir Ndiaye di ndokkeel jamiyatul birri wal islah bu Dakar ci lima xam man yaakaar naa booy mooy biñ njëkk a samp fii ci Dakar bu ma juumut euh, ñu sant yàlla bu baax ci loolu euh, kàddu yi nag du mun a gudd dañ koy gàttalee ngir guddalee ko xam-xam bu rafet bu sell bu fi oustaz Bachir wax jàngal nañu Oustaz Ndaw Imaam Ndaw sànq wax na fi ne néew na ku nekk mbiri na ku mu jàngalut loolu lu wér la ndax saabu bu minuit jotee boo ubbee Alfayda danga ko déglu muy jàngale téere bàyyi ñun bëri na ndaw lu nekk mbiri na te jaaroo ci moom mu jàngal la majalis kon ku am xam-xam la ku ko itteewoo la ku ci yàgg góorgóor la di bëri na ñoo xamante ni dañoo nëbbatu moom ci ñu nëbb ñu la bokk fees del la xam-xam te boo demee na boo ko fekkee buntu këram mu toog doo foog na seex kii xam na dara ab taalibe la def boppam suufeel boppam wàccee boppam kon nit ku baax la jotaay bi nag dañ ci sant yàlla bu baax di ndokkeel ñëpp képp ku fi teew ñu ngi lay ndokkeel di la sant di la gërëm pila ñaanal yàlla ndax lii suñ jotaay la Cheikh Sakhir mi sëriñ Aqibu moo ko oo moo ko tarbiya yar ko ci biir këram fat ko ci këram pendant cinq ans ak ay weer yam ca teg moom yi wax bindal ko lijaasa ne ko demal dakaar nga oote ngir yàlla te yàlla tax nga liggéeyal moo Mawlana Cheikh Ibrahim te ñun seede nañ ne depuis sëriñ bi ebal ko fi ba léegi wax dëgg yàlla suñ koo dégg ci lu ñaaw suñ koo dégg ci luñ koy xeebee kon kii ku ñuy tiitaroo la ndax lu ñu waroon la ñëw ñun ndax tool bi suñ tool la ñun ñoo waroon a ñëw fii toog fi bay ko moom mu ñëw fi uutuñu ko uutuñu fi bàyyi ndeyam bàyyi baayam fële ci Kaolack ñëw fii di tumuranke ba mu fii ñëw bees metti woon na lool xëyut rek mu neex de dafa ñëw di raam ba ci yàgg mu taxaw di jon di jànkuwante ak ay jafe-jafe ba mun a xëy tey am lii nii mu am sëriñ bi ne woon na ko demal nga oote te bul yàkkam gis nga ndaw lu jub la nekk fa loxol yàlla jomb ko kon ñi ngi sant yàlla bu baax ci moom gis nga yenentu yàlla Suleymaan ba mu xool ba mu gisee may yu rëy yu ko yàlla may yépp hmm? dafa wax ne ah, mu ngi sant yàlla mi nga xamante ni alhamdulillahi alladi faddalana ala kathirin min ibadihi almuminun wa warisa suleymaanu daawud wa qaala yaa ayyuha annaasu ullimna mantiqa tayri wa uutina min kulli cheyin inna hada la huwa alfadlu almubinu la wax ba mu gisee may yooyu nag may yooyu may yore yooyu nag ah naala loolu fadlun bin wa hushira li suleymaana junuuduhu min al-jinni wal-insi wat-tayri fahum yuwza'uun حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها لما يؤتى واحد موي وقال أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي wa an amala saalihan tarda kon ñun dañuy taxaw ci barab ci bunt boobu kon di sant yàlla lii suñuy maam ñoo ci nekkoon suñuy bàyyi ñëw nekk ci ñi ji ñi gis jagle bi ñu yàlla jagle ci biir way gëm ñi ndax loolu Suleymaan wax fadrana ala kathiri min abadil muminun la wax ah kon mu yegg ci mu yegg ci bene an amala saalihan nag tardaahu ba ma mën a jëf jëf ju ju yàlla gërëm bari na jëf ju xiw te yàlla du ko gërëm waaye moom dafa ràññale def na jëf ju xiw ju yàlla gërëm kon nag bu ñëwee fii fekk fi ndaw loo xamante ni dafa jël boppam jaay ko jihaad ci yoonu yàlla jaay askanam ñëw effacé turi baayam effacé turi ndeyam ne la man sa baay laay bëggee sa baay laay sagoo népp lépp lu ma mel sa baay la te yàlla rek moom laa ànde woon ak moom kon wax dëgg yàlla bu ñëwee ba fii gis xale yi ci melokaan bi ci lim leen yaree nii kon ñun alhamdulilah duñ def lu may ñaanal ko yàlla te di ko sant bu baax di ko gërëm te ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yokk yàlla guddal fanam te may ko wér ñi ngi sant yàlla daal bu baax alquran daf ñaa wax ne man qatala nafsan mutaamidan fa jazaauhu misla ma qatala min annaami waaye nag wa man ahyaaha fa ka annama ahya annaasa jamian alquran dafa ñoo xam ne ku rey benn bakkan te tay ko kooku luy fayam misli ma qatala min annaami la alquran wax waaye wa man ahyaaha nag fa ka annama ahya annaasa jamian bu dundalee benn bakkan mu ngi mel ne yow dundal nga bakkan yépp ndax dëgg yàlla xaal bi fi nekk tey xale yi dund ko fii tey xol yu dundut ci yàlla duñ def loolu kon nag ñi ngi sant bu baax di gërëm di ko ñaar yàlla yal na ko yàlla wattu yàlla sàmm ko taxaar ko ñun ñëpp yal nañu yàlla saxaal ci njub njub rek moo ñu fi dajale ñun ñëpp ak bugg xol bu sell ak bugg xiw ñun ñëpp xiw lañ taataan si jërë ngeen jëf yéen waa jëm birri wal islah yéen ñi nga xamante ne yéen yéen nañu yéen nañu oo ci xiw gii nii tey ndax bari na koo xamante ni mun naa am sax xiw jotaay bi indiwu ko woon waaye lépp luñ fi am mu am ko ndax umul qawmu laa yashqaa bihim jalisuhum loolu la yelente bi dégg ndax jotaay yu mel nii itim dana kaafara ay junney junney junney bàkkaar yoo xamante ni nit def na ko wala ay yeneen junney junney junney jotaayu jotaayu safaan ndax alfay alf min majlis suu la yenent bi wax damay faral di wax ne xajut ci dundu doomi aadama mu teew ñaari milliards yi jotaayu ba jotaayu bàkkaar impossible mënta nekk sa dund gi loolu xaju ci waaye léegi nag ci mbaaxu yàlla yàlla mu ne la nga teew ci jotaayu xiw boo xamante ni dinaa la ci kaafaraal ñaari milliards yi junnay ñaari milliards yi bakkaar yoo xamante ni danga ko teew ci jotaayu safaan kon lii daje ci yàlla rek moo ko mën yàlla nañu yàlla dimbalee yàlla def ñu ay jullit xaqan yàlla wëttuñu sàmm ñu aar ñu bépp soxla bi fi waaye indi yàlla na ko yàlla fajal képp ko fi ragg yàlla na ko yàlla saafara jigéen ñu soxla jëkkër yàlla na leen ko yàlla defal nii rek la fu góor ñi di xëccoo lu baax ngeen xëccoo ko ak ñoom ndax loolu la ñu Mawlana Cheikh Ibrahim Niass digal ayyuhal banaatu zaaxim na ilaa naylil ula amma bi abdalin fala jotutoon sax may yàgg ci yooyu noonu yëpp ndax oustaz Bachir wax dëgg yàlla jàngale na fi ni taalibe di nekkee ak seriñam ni jigéen di nekkee ak jëkkëram ni doom di nekkee ak baayam imaam Ali ñëw moom it décortiqué ko décortiqué ko indi yeneeni xadis yiy wéral wax yooyu noonu ndax nit ñi xol bu sell rek lañ bëgg ndax jamono dafa toll ci waay foo taman ba nga xamante ni mooy la alquran yàlla wax rek ne wala asri inna al insana la fi xusrin illa alladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw sabri kon jotaay bi mat na di bëril jotaay yu mel ni mat na di bëril ci jamono fi mu toll nii nit ñi lii rek lañ bëgg mbaax rek lañ bëgg defaru rek lañ bëgg sel rek lañ bëgg xol yu fees dell ak yàlla rek lañ bëgg jub rek lañ bëgg te jotaay yu mel nii moo ko moo koy maye te wér na ma ne man wér na ma ne képp ku teew fii tey soxal dund na ci yàlla ndax dégg nga am nga fi loo yóbbu ku fi teew tey rek am nga yóbbal ndax dégg nga loo xamante ni lu lay jëriñ la Oustaz Bachir joxe na fi dars yoo xamante ni mat na yóbbal sëkk buñ ko buñ demee nañ dégg li fi Oustaz Bachir wax ñun ñëpp ñu jëfee ko te nekk ci ren ba déwén bu déwénee incha allah ñu jëlaat yeneen dars yu bees yàlla mën na loolu yàlla ñu fi yàlla bàyyi yàlla bu mu nekk suñ mujjanteelu ziar yàlla nañ ko def ay at yi at yi at at yu limoo limu te bépp bu ñëw rek yàlla na gën a barke yàlla na gën a yokk yàlla na ëpp li jaaba bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi jërëjëf yàlla na la fi yàlla bàyyi yàlla na yàlla guddal sa fan yàlla na la yàlla may wér sak nga ci kër ci kër Cheikh Mouhamadul Aqib sak nga ci kër Cheikh Mouhamadul Aqib wax dëgg yàlla man day musuma dégg ñu ne jëf ji ñaaw ji yow yaa ko def fi mosuma dégg it ñu ne wax ju ñaaw ji yaw yaa ko def kon ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm lii rek la ñuy àndee nit ci yàlla Cheikh Oustaz Bachir wax na ko sànq bàyyi wax nañu ni ñuy tànneeb sëriñ fii ku fi nekk ci leneen rek yow yaa ko teg sa bopp ku fi jàpp leneen ku lay nax wala ku lay ku lay jëmale ci leneen lu dul yàlla yow la neex ndax ñun suñ sëriñ yee nañu wax nañu ñu nañu utee sëriñ wax nañu qualité yi ñuy gis pour mun a moomale nit ki ci suñ bopp koo xamante ni du ñu sànq kon nag buñ nekk ay dof bàyyi nee na buñ nekk ay dof yoo xamante ni ku jug nax ñu ñun bàyyi def ñoo xee dégg nga ba mu demee wax wax wax ba mën a tut ba mu néew doole néew kàttan dafa dem ba ci yenant bi ne ko maa ngi nii néew naa doole de jaaw naa sonn naa màgget naa waaye loolu yëpp jublu ma ci lenn li yam sura dina laa yuridu nga kon buñ bokk ci alladina nasullaha fa nasiyahum buñ bokk ci ñi nga xamante ni dañoo fàtte yàlla ba yàlla fàtte ñu yàlla buñ yàlla fàtte yàlla buñ fàtte yàlla yàlla nañu yàlla wëttu yàlla nañu yàlla sàmm yàlla xaar ñu yàlla faj mbooleemi haajo yi yàlla soxla bu rëy ak bu ndaw yam ci moom bàyyi nee na suñ soxla yi nañ koy ñaan yàlla bu kenn xeeb benn soxla waaye bu kenn xéem benn soxla kon nag ñu ngi leen ndokkeel bu baax beneen yoon yéen ñu sos lii ak képp koo xamante ni dimbalante dimbalante na ci ak yéen ak képp ku ci def dërëmam ak képp ku ci def alalam yal na la yàlla fay xiw yal na yàlla huutu huutu la ci ci fay yàlla mun na ko yàlla ñu ko yàlla defar bi jaay rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ma zalika ala allahi bi azizin asalaamaaleykum wa rahmatullah sant nañu baax gërëm nañu baax alhamdulillahi rabbil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 أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وبلغ مولانا رسول مصطفى صادق الأمين وهو أصدق القائلين والمصدقين ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وحمزة والعباس وجعفر وعقيل والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة وسائر أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين والتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم نور به قلوبنا وقبورنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا ووفقنا لما في رضاك عنا اللهم اجعل القرآن عظيم أمامنا وقائدنا إلى الجنة ولا تجعله خلفنا سائقنا إلى النار اللهم اجعل القرآن عظيم شافعا مشفعا فينا ولا تجعل ماحلا مصدقا فينا اللهم اجعله لنا ولا تجعل علينا اللهم ارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا كفيته ولا غائبا إلا رددته ولا عاصيا إلا عصمته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها في يسر منك وعافية innaka ala kulli shayin qadir wa bil ijabati aljadir ya da aljalali wal ikram allahuma arhamna bilqur'ani alazim wanfana bima fihi min alayati wa zikri alhakim allahuma allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nasina warzuqna tilawatahu wa halawatahu ana allayli wa atrafa annahari ibtigaa mardatik allahuma ma qadayta bihi alayna min qada'in faj'al aqibatahu rushdan rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada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 وامدد علينا من حماك الأمنع سرادقا من حل فيه يمنع اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا في كنفك الذي لا يرام وجعلنا في جوارك الذي لا يغفر ولا يضعم اللهم إنا ندرع بك في نحور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم إنك أعلم بأعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا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 man xadara min aljamii aw xaaba wa zidna wa atina wa arfacna wa daafi'na wa axfadna wa saddid umuurana wa arix abdaanana wa quluubana wa jacal xayra ayaamika yowma liqaa'ik wa jacal xayra ayaamina yowma liqaa'ik allahuma asturna bi sitrika aljamiil allahuma asturna bi sitrika aljamiil allahuma asturna bi sitrika aljamiil wa caamilna bi lutfika aljasiil wa fadlika aljamiil وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين